yàllaan bikum Amadou Ba fa mel ni léegi ab président de la république moom lay doxee donte gañeegul élection yi si du quotidien moo ko wax ndax démb daal njiiti jëwrin yi fa dem Tiwaawoon lu jëm ci gàmmu gi waaye ku ko xool démb fa ngay foog ne président la le quotidien yéen kaay na ko li nga waxee dëgg amadu Ba démb fa doon campagne ci këru kilifa diine yi waaye moom fa dem ngir gàmmu gi waaye fa xett boobaale maanaam dàq ganaar fa jaale sa soxla ndax ci campagne la nekk donte nag lancé na fa ay liggéey travaux <laughs> yegg ca nañ ja mooy ne Amadou Ba njiiti jëwriñ yi fu mu nii fu ko neex dem ci réew mi mbooloo mu bëri topp ko mu mel ni ku nekk ci campagne waaye ku jóge opposition bi ñoom fu ñu génn rek ci réew mi takk der yi bloqué leen ba tax tey mooy yéen a kaay ne xanaa li mooy kumba am nday kumba amul nday police gendarmerie ak préfet yi fa xàllal yoon benn bokk yaakaar ba pare fa ñuy taxaw ca kanam ku jóge opposition bi na leen xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa du ngeen fi a kaay dëggal ko ne Amadou Ba kay njiiti jëwriñ fañ opposition bi ku gi moom fañ leen di tere ñu amal tournée ak yeneen yi ni mel yaw seetal ginnaaw Malick Gakou ca Kébémer démb Bougane Gueye Dany moom la takk der yi bloqué convoi am ba wala fa jir yéene kaay dëggal ko na ko kusaanaar fa lañ bloqué Bougane Gueye Dany na ko doo jàll man ma jàll ci l'observateur fekk fa ñaxtu yi nga xam ne moom la farandooru Ousmane Sonko yi di amal jamono ji ca bitim réew Amérique New York lépp ngir ñaawlu doxalinu njiitëram Macky Sall yaw fa ngay xool njiitëram Macky Sall ay yuuxóog donte fañ koy jéem a nëbb lañ leen def ca New York kaay bi ne lii nag artu la ci démocratie Sénégal fi mu toll ni ni mel New York mi fu mu génn rek gaa yi yuuxóog vox populi mel ni ku daan leen l'observateur yéen tamit bu leen fàtte seen patron Youssou Ndour moom i tamit jot na wàllam patriote yi wan ko dara jarul ca Paris yaaw seetal Youssou Ndour fa doon xamal concert ca Paris waaye farandaru Ousmane Sonko ay ndaw fañ ba mu commencé wëy rek ñu tàmbali di ko yuuxoo wuu wuu libéré Ousmane Sonko bi ko yëfi tànqalee moom Youssou Ndour fa arrêté wëy neexu leen bu baax li ngeen di wax noonu patriote di gën a rek fin mooy yéene kaay mais ni ko fa ñàkk pexe démb fa jaaxle fañ ko doon yuuxoo de regard yéene dëggal xibaar bi ne waa Pastef yi kay fi toll nii ñi ngi fayu bu baax ci gaañi bitim réew daal lañ leen di xaar rek ku ñëw ñu yuuxoo la direct news dëggal ko ne fi toll nii comme mënuñoo ñaxtu ci réewum Sénégal xeex bi kon fañ ko yóbbu bitim réew ku leen fa fekk rek ñu yuuxoo <laughs> li ni mel léeg si ko yéene kaay na ko Khalifa Sall de moom ak Moussa Tine moom fi mu leer na nañ waaye yeewi askan yi fañ leen a dàq kat ji ca biti génne nañ leen yeewi ndax fa ñoo créé beneen groupe WhatsApp bu bees te Khalifa ak Moussa bokkuñ ca waaye yeewee ña amal seeni réunion te oowuñ Khalifa oowuñ Moussa kon kay mooy ne bokkatuñ yeewi l'évidence yéene kaay moom fa xamal ne ñu ñuy wax ay cheminot fa sàkku ci terrain bi nga xam ne fa tàmbali raawoo nag jëm ci grande mosquée bu Tiwaawoon jumaa ju mag ju Tiwaawoon ja ñuy tabax rafetaay baak architecture ba yéeme gëm yéeme a a kaay moom fa ca dal ca teega ca xam-xam bu bëri ba liggéey lislaam ak faydu bi fa jub fa sell sëtu Baye Ñas la ndax waay juróom bu jigéen mooy Seyda Fatimata Zahra waay juróom bu góor mooy Seydi Ali nekkoon bras droit bu Baye Ñas moom Cheikh Mahi mi ngi gën a àdduna ci atum 1966 samp na ay daara ak yeneen yi ni mel moom fa ñoo xamal ne gaz ba nga xam ne moo kalaate woon ca benn kër ca derkele ba juróom faatu woon ci fi mu ni yokk na juróom benn nit ñoo ca faatu njiit réew Macky sax jaale na njabooti ñi ci faatu source a yéen kaay ne faa di wax liñ njortu ne moo tax butéelu gaz ba kalaate mooy téléphone portable soxna sañuy wax sagar Diouf fa doon wax téléphone nekk ci pegg gaz bi loolu moo ko kalaateloo benn xale bu góor nag ndeysaan fa ñëw fekk yaayam ci lakk gi gaz bi mu daw wax Radisson ca Ndakaaru labee mujj faatu ñàkk bakkanam libération moo ñu ko xamal ba tey yéenekaay bi fa ñoo xamal wàllu tappale njublang ngir a xam xaalis jaaree ko ci sàcc nit boo xam ne du dëgg laneen luy dëgg te kuñ ko wax ñaaral doo ko gëm mooy soxna suñuy wax awa baaba caam fa ñoo wax ne fa def lu garaaw ba pare takk dere jàpp ko waaye fañ ko mujj bàyyi mu ñibbi këram ah, yaaw seetal fa xam benn soxna soo xam ne fañ ko doon këttal ay saaga ci téléphone am bi mu kalaamee takk ñu topp téléphone bi ndekete bi ko takk dere jàppee na ko yow yaay def def yu ñaaw message wala may wax yu bon yi du man ndekete patronam aaw baaba caam la wax ne moo daan jël téléphone ba saaga ba doyal effacé ko l' observateur nee na jàpp nañ ko daal waaye mujj nañ koo bàyyi li sénégalais yi war a bàyyi xel nag mooy jàngoro ji ñuy wax hypertension fi mu ni fa bëri lool ñetti nit ñoo gis kenn ka am na ko te fay rayee nag fi léeg dana rey lu toll ci 76 ci ay doomu aadama laa si yéene kaay moo ñu ko xamal dee leen contrôler seen tension yi bés bi yéene kaay fa jox kàddu mbay jóob ndeysaan fa a dem amérique def na ko ca camp ba waaye fañ ko mujj si Sénégal yéene kaay bi ne waa ji yaakaaram tas na jaay sa xalal dajale ay millions dagg billet dem ba Nicaragua ba ca camp ñu mujj delloo si la aay lu métti la fa ngay perte dis perte las rek ki nangoo perte doomam lépp ndax daw gàcce du kenn ku mooy benn xale bu jigéen elew la terminal lay def fa jur doom ba pare sànni ko ca jaxaay daw dem ñu foree doom ji fekk mu ànd ak bakkan takk dari enquête ba jàpp xale bu jigéen bi na ko lu tax nga def lii mu ne faa njëkkoon a hëmb léegi bi ma hëmbaatee may bañ suñu waa kër yi xas moo tax reyu ma sama doom ji waaye faa sànni daw dem ñu ne ko ku la def lii mu ne sama benn